lén ak jamm sen saint bi di TV ki di Karim Wade ci liste provisoire bu le conseil constitutionnel le publié won mom rek mom mo nek candidat bi nga xamné da daa ci vingt et yi té ñu mujj ko recalé ci publication liste définitive yi ci problème double nationalité fofé jaar di di koy Karim Wade. mais Karim Wade c'est comme si man nga appréhender par exemple est-ce que vous naa candidat réellement. mais Karim Wade c'est comme si mën nga par exemple est-ce que vous naa candidat réellement. ndax Karim Wade si vous réellement candidat ci réew du Sénégal L'olé un laaj la ndax di Karim Wade du l'élection élection présidentielle 2024 ñu jëm déposé candidature à si du Sénégal Sénégal kookee di Karim Wade en 2019 je naa bokk candidat yu bëggoon du Sénégal. même bu fekkee ne kookee di Karim Wade en 2019 candidature am mujjul woon a jàll kookee waroon naa xam que ne ci réew mii di Sénégal pour nga nekk fi candidat pour jiite réew mi danga ngaa war a nekk de nationalité exclusivement sénégalaise maanaam benn nationalité rek nga war a am te nationalité boobee sénégalaise la war a doon donc kii di Karim Wade depuis deux mille 2019 ay affaire de double nationalité foofee la ko waroon a réglé waaye ndekete kii di affaire double nationalité da koo nëpp nëppal daal di koy bàyyi noonee ba ñëwaat ci élection présidentielle 2024 yi ñu jéem a si li ni mel la ko jéem daal di réglé ba ñu daal di ko ci mu mujjee recalé loolee nag moom moo waral ñu samp laaj di laaj ndax kii di Karim Wade moom est-ce que personnellement bëgg naa nekk président si réew mi di Sénégal ndax kooke ginnaaw ba mu génnee ci réew mi daal di tëgg diil moom ak kii di président Macky Sall daal di dem ba Qatar toog foofee daal fay ràcc kenn mësu koo gis mu daal di yëy wala yàbbi ci ay problème politique ci réew mii di Sénégal te tamit dañoo sortie bu mu amal le 31 décembre bi ñu génn ne day àddu jëmale ko ci sénégalais yi bépp connaisseur xam na que ne vidéo boobee du vidéo bu authentique ab vidéo montage la bi ñu jël bu ko gëmloo sénégalais yi que ne kookee di Karim Wade moo doon wax jëmale ko ci sénégalais yi donc kii di Karim Wade lépp ci sénégalais lambda yi lu ñu gëm mooy que ne buggut a nekk ab président ci réew mii di Sénégal dañ ko koy forcer waaye moom loolee nekkul ab ambition